أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki leeral pas-pas wahaabi si xiyaakumullah waaw ñu del siwaat ak yéen ci tafsir bi nga xam ne ñu ngi ciy ànd ak al aalim al allaama ustaad daawud kamara di ñaan borom bi borom asmaan ak suuf mu defal ko tawfiq te defal ñu ko barke cheikhul xadim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 bokki leeral pas-pasub wahaabi seen mbokku daara da kamara mu di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ñu yooyu nag dañ koy teg rek ci loxo yi sëñ Nuur mu joxal ñu ko bokk ñu bokkal leeral pas-pasub wahaabi yu ni nuyu suñuy kilifa diine di ko teg rek ci suñuy loxo wasila al wafiyul amin cheikh mouhamadinil moustapha si al amin mu joxal ñu leen ko kon sëñ nuur dina nuyu it say soppe ñuy ay nit ñu baax ñoom it it sëñ estaan Seck euh, mama euh, soxna kodd saalix mu joxal ñu ko jigéen ñi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu ma isa ak ñim ko andantel ñom Firiman ak ñom Sam Gueye ak Ousmane ak Pa Omar Touré ñu ngi leen di nuyu ñom ñep Traoré rek di leen nuyu ñom ñep di leen jox seen way ak sa collaborateur sëñ Khadim sha allah ci taxaway be liggey bu rafet bi mi def ci taqdisul asqas ci sikri soufi ndax liggey tamit nonu la waaw taxaway rek suñu mam yu bax yi ah waré su leena jëndé ay agresseur loolu xeeblu sa bop la waaw xeeblu sa bopp la doye di la yal ñu ci yàlla musal kon ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax sëñ Nuur ci taxawaay bi tey nag ñu fas yéenee ñëw ci maarifatu awalu ma nazala wa axiru ma nazala su fekkee nag yaatu yaatu am na dañuy daal di sof alxawaayit allati yaxtaaju ilayha al mufassir règle yi nga xam ne yow mi tafsir da nga koy soxla euh, incha allahu taala ñu ñëw ci foofu nag la ñuy daal di dugge après incha allah ñëw nag ci saar yi tekki benn ci ci wolof bi benn par benn ci ndimbalal yàlla kàttanam kon tey daal ñu xam ne ñu ngi ci maarifatu awalu ma nazala wa axiru ma nazala xam saar yu njëkk a wàcc ak saar wu mujjee wàcc ak gars yi lan lañ ci wax incha allah ci lañ fa yéene waxtaan suñu noofu kon sëriñ tey dinañ soxla comme ni ñuy soxlaa xadis ndax ñooy ànd ñoom ñaar ndax siira moy leral alquran ak hadis ci événement yi nga xamne ñoo delu wat ci xiste yi ci tarikh lañ mëna dem wala ci sirah pour xam ko bu dee yonent bi ci siira lañuy delu pour xam ay mbir bu dee ci ñu ñëk ña ci xiste yi lañuy delu pour xam motax tax xistasul anbiya su dé sahaba yi ci tarikh lañuy delu wat motax tax bi euh, ñu kaddu gi gëna wër moy iqra bismi rabbikal ladzi xalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم موي جرومي آية يوي نوي يجيك واسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون أول ما نزل دال تي أصح القول موي جرومي آية يوي نخمني موم لا جانغ يننتو نك نيكو وحيو بديكي منكو تعملي تي رؤيا الصالقة loolu la soxna Aïcha wax ne awalu ma budi a bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam min al waxyi a fi as sadiqa fi soo demee ci siira kenn ci suñuy maam bind ci mu doon suñu noflaay nun waa Afrique dégg nga te ñoom mag ñi ñu daan seedalante mbaax ku ci nekk boo gisee sa mbaaxu morom nangu ko te loolu yar it bépp sufiyanke muy maam sil xaaji malik moom la ju min baadi taa in wala min summa sittati as hurin raa kan la subhi lam yahimi soo ko mooy dellu ci awaluma buddi ab boobu soxna Aysa wax moom la tënk ci bayit boobu noonu waaye yenent bi nettali boppam ci xadis ba tey kon loolu ñu ngi koy fekk ci asheyqaani muy muslim ak waaye it ba tey ca même boo continuer ci xadis bi day nettali fi ko jibril fekk ci xaaru xiraa دينغ فجاءه الملك فيه فقال اقرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما انا بقاري فاخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقاري فغتني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسل ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقاري فغتني الثالثه حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق بني مؤسس ما لم يعلم مجرم آي جيك يوينون لولو بني دمي سيسايه البخاري دانك ففك وعي سنو دمي تمي سيسين سيرة مام بيدي خلاص ظهر دانك ففك وكان بطءا على حب الخلاء إلى أن جاء في الغاية روح القدس لم ينمي دينغ وغطه للبلوغ الجهد قائله فقر وخاله ما ذاك من نظم إذ كرر الغط مرات يقول له يقول له اقرأ باسم ربك الذي أنت kon foofu eh, loolu la tënk ci ci ci hadis bi ma wax nii loolu loolu bayit yooyu moo koy tënk mooy jibril bi mu fekk yonent bi sallallahu alayhi daal di koy wax jàngal yonent bi ne ko lu may jàng mu mboq ko dégg nga ba yonent bi àgg lool ci coono ñaar ñett dégg nag mu soog koy waxal iqra ba ci juróomi laay yooyu ñaareelu wax ji ne awaluma buddi ak awaluma nazala mooy suratu mudassir euh, sëriñ Noor loolu tiit xam nga li ko indi mooy Buxaari muslim dañ cee wax jëlee ko ci abi salma ibnu abdirahman moo waxoon laaj na jibril ibnu déggal ne ko alquran bu ci njëkk a wàcc mu ne ko yaa mu mudassir dégg nga noonu de mu ne ko yaa mu mudassir xultu ma wax aw iqra bismi rabbika kon foofu ñoom ñoo indi loolu ñoo ko indi li ko indi nag ñu ne yaa ayyuhal mudassir mooy yaa ayyuhal mudassir dafa wàccandoog suura bi noonu bi jumal bi kaamila noonu la wàccee moo tax noonu la wàcc dafa wàcc moom defuñu ko pàcc comme nii ñu defee iqra pàcc déedéet looloo tax nag ñi jàpp ne mu dasira njëkk a wàcc foofu lañuy ñuy foofu lañu foofu lañ koy teg dégg aha pourtant am na ñetteelu wax sax de am na ñu wax ni fatiha mooy mooy saar bi njëkk a wàcc am na ñu wax loolu dégg am na ñeenteel sax bi am na ñu ne bismillahi rahmaani rahim waaw nee na ñooñu sax nee na loolu moo tax nga gis saar yi ñuy ubbee loolu waaye almuhim kon mi ngi noonu dégg nga iqra mooy bi gën a wér boo demee moom ngay fekk it ndeysaan kilifa yi di ko di ko di ko traité dégg kon aaxiru maa kon ban la aaxiru maa nasala juboo amu ci sëy ñuur ndax soo demee buxaari yi xadis ba mu jëlee ci kooku ibnu abbas nee na ayatu riba mooy aaya bi nga xam ne nii axiru ma nazala te mooy yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba dégg nga ñaareelu wax ji ñu wax ne axiru ma nazala daal min alquran mooy wax ji yàlla wax ne wattaqu yawman turjauna fihi ila allah soo ko boobu moom siiw na lool moom it dégg boo demee ci nasaa'i ak ñu dul moom nettali nañ ko jëlee ko ca ibnu abbas même chose ak say ibnu jubair ne axiru cheyin nazala min alquran wattaqu yawman turjauna fihi ila allah dégg ñetteelu wax ji wax nañu ne aaya bi nga xam ne moom mujj wàcc ci aaya yi mooy aaya bi dem ci dayn muy wàllu bor yaa ayuha allazina amanu ida tadayantum bi daynin ila ajlin musamma faktubuhu am nañu wax ne loolu moom moo ko moo kii dégg moo mujj wàcc ndax boo xoolee ñoom bu ñu dajalee riwaayaat asalaasa yi ma wax léegi nii mooy aaya bii di yaa ayuha alladina amanu iza tadayantum bi daynin ila ajlin musamma faktubuhu noonu moom dafa wàcc noonu jumlatan noonu la wàcce rek dégg nga waaw daf la wàcce moom it noonu la toftaloo ba jeex te laat ci yàlla dugg dane wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun donc comme ñoom ñaar ñoo dend bi deux cent quatre-vingt-huit bi deux cent déggal deux cent quatre-vingt bi deux cent quatre-vingt-un moo tax gaa yi jàpp loolu am ñu nii bi mujjee wàcc mooy aaya kalaala yastaftuunaka qulillahu yuftikum fil kalaala moom moo mujj wàcc dégg am ñu ne laqad jaakum rasulun min anfusikum moo mujj wàcc kon mi ngi noonu pourtant sax day am ci am ñu wax nag ni axiru ma nazala daal mooy suratu maida ndax loolu li tilmisil nettali ak xaakim jëlee ko ci aïcha radiallahu anha moo tax ñoom ñu wax loolu kooku moom mu ngi ci suura yi dégg am ñu wax ni aaturu ma nazala fastajaaba lahum rabbuhum anni laa udiu amala amilin minkum min dakarin aw unsa baadukum min baadin ca imran moom moo mujj wàcc dégg nga fastajaaba lahum rabbuhum anni laa udiu amala amilin minkum boobu am na ñu wax ne loolu moom moo mujj wàcc am ñu wax ne wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazauhu jahannam xaalidan fiha wa xadiba allahu alayhim wa laannaahu wa aadalahu azaban azima mooy bi njëkk mooy bi mujj mooy bi mujjee waat kon mi ngi noonu sëriñ ak ay mbiram mu delluwaat ci yi mujj wàcc ak yi yi njëkk a wàcc léegi dañuy ñëw ci ci mawduiya yi nga xam ne moo nekk ci alquranul karim suñu demee ci mawduiya yi yi ci njëkk a wàcc mi ngi dellu ci siise siise yeeg ture ture yi bëgg maa isa <laughs> ak maa isa ak Firimaan ak ndeysaan ak eh, ñoom Ousmane <laughs> ture ture ture yeeg sile sile yi ak ñoom sëñ Fallou Galas <laughs> moom gëj naa ko dégg sax ndeysaan <coughs> ñoom Khalifa Mbuub waaw seen aaya moo njëkk a wàcc muy aaya bi dellu ci wàllu taam yi muy al atima dégg nga aaya bi ci njëkk a kon aaya bi njëkk a wàcc di ci njëkk wàcc mooy ay sàlleen yooyu ma wax ni ak mbubeen yeeg mbayeen yi ñoom maalika gaa yooyu <laughs> muy al atima te ma nga wàccee màkka muy xul laa ajidu fii ma uxiya ilayya muharraman ala taamin yat'amuhu ila an yakuna maytatan aw damman masfuuxa aw laxma xinzir fa innahu rijsun أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم كوكو بيرنا لا باتا توب موي با نيو فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ودم ولحم القنظير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم باشا توابو إنما من سورة البقرة تموي إنما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم باشا توابو من تمائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنقنقة والموقوزة والمتردية والنتيحة وما أكل الصبع إلى ما زكيتم وما زبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق كنك اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني كنك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورجت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم كن يوي نوي جك وات واي كو واخ ليك دا واخ نان سن نور دينغ كون سو نيي تي اولو ما نزل في في في في في, في, في, في, في, في, في, في, في dañuy dem nag ci asri ba muy muy muy naan yi yasaluunaka an ilxamr walmaysir xul fihima ismun kabir wa manafiu linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima bu dee naan yi bi ci njëkk a wàcc ma nga baqara mooy sàngara gaa yi ñëw laaj tem boobu ci njëkk a wàcc tem sàngara moo ci ci ñi naan moo ci njëkk a gaa ñëw laaj yàlla ne leen ah, boobu tere ga nekkagul définitivement bu ñu laaj ko ci wuri ak sàngara mu ne leen bàkkaar bu rëy mi ngi ci ak njëriñ pour nit ñi waaye bàkkaar ba ëpp njëriñ bi nag beneen ba mooy soltu nisaa yi yaa ayuha allazina amanu laa taqrabu salata wa antum sukara xata taalamu ma taxuluun ba ñëw ci maida di wax ne yaa ayuha allazina amanu yéen ñi ne ci dairatul iman laa taqarabu salaata foofu mooy barabi bu leen jege barabi jullekaay yi ah te loolu xam nga jaiz jaiz bu leen jege barabu jullekaay yi wa mbir moom antum waawu xaal mbir moom antum yéen sukara da ngeen xata taalamu ba mbete ngeen xamee maa la nga xam ne maa taquluna li ngeen di wax bu ngeen xamut ndax ku mandi mënta xam li muy wax baax na wala baaxut aw na yoon wala awut yoon ñetteel ba mooy si maida yaa ayuha allazina amanu innama alxamru walmaysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu laalakum tuflihun ndax innama yuridu shaytaan an yuqia baynakum al adawata wal bagdaa fi l xamr wal maysir wa yasuddakum an dikrillah wa an issalah fa hal antum muntahun acca léegi jeex na tàkk tere nañ ko dégg nga kon mi ngi noonu bu dee saar wi njëkk a wàcc di dem ci xeex mooy euh, ba ba wàcc surtout xitaal bi wàcc ci waaw mooy usina te nekk surtout xajji usina lillazina yuqaatiluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrim la qadir sadaqa allahu mawlana alazim wa ballaga rasulu nabi almustafa alkarim sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam kon oustaz inchaa allahu taala comme ni ma la ko waxee rek bii di ñëw dañuy daal di nag dugg léegi ci xawaaidul lati yaxtaaju ci alqawaidu allati yaxtaaju ilayha almufassir dégg nga euh, règle yi nga xam ne daf koy soxlawoo moom mufassir bi ndax adam benn ba soxla na woona mu xam leen moom mufassir bi a taarif wa tankir war na leen a xam dégg ndax tankir dafa am maqaama taarif dafa am maqaama ku ci nekk sa maqaama war te tax seen maqaama taxtalif bi ixtilaafi kulli nawin min anwaai taarif moo tax dégg nga war na xam al ifraad wal jam moom mi tekki war na mën a xamitit muqaabalatul jam bil jami aw bil mufrad loolu tekkikat bu ko xamul boo tafsiré yaa ngi def erreur maa yuzannu annahu mutaraadif wa laysa min al mutaraadif war na ko xam as su'aalu wal jawaab war na ko xam dégg nga al alxitaab bil ism wal xitaab bil fi'li war na ko xam war na xam li ñuy wax tamit al atf war na xam al farqu bayna al itai wa itai dégg nga war na xam lafzu faala war na xam lafzu kaana taxawaayam ci téere bi war na xam lafzu kaada war na xam lafzu jaala waaye war na xam laalla ak asa yooyu nag lañ bëgg a traité insha allahu taala suñu semaine bii di ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci fii ci leeral pas bu hay bi yuni diko di ko ànd ak seen wa akhiru dawana ni rabbil alamin alaykum wa rahmatullah mbok mi gannaaw bi setan video ba pare ñu lay ñaan nga bëss fi ñu bind j'aime bu fekkee gande ci chaîne bi nak bëssal fi ni ñu bind s'abonner après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat yi ni ci commentaire yi li nak do ci fay dara te dina tax video buñ dugalati di ci jot jaa jëf